Ya Allah Ya Allah loo ci ñaan may la loo ci jéggalu mu baal ci la ngëneel yi tàbbee Ramadan غدا يا حبيب يا حبيب رمضان bu ndox lan moo tax bu ndox tee ngaa jox sa bopp wàccuwaay bu ndox feeral ci sa ponkalaay bii sa noolay pataay yëpp war nañ koor gii heure bii ngay ndékki lii ñëpp ko mën de lii ñëpp ko mën gëm yàlla rek lii ñëpp ko mën dan ah, la ëpp sago dan laa ëpp saba ànd ak toujours su gëm yàlla waaye dàqoo ndékki kenn bu ñu fontoo koor gii nga heure bi ngay ndékki da moo ne ku la jaay nii dama eh, dama la koy xoolal moo maskala laa nag damay am war naa de lan moo la teree woor laa lay balaa dara xew lan moo la teree woor man xale laa mënuma woor yàlla dafa wax ne ab koor soo ko mënul bàyyil fu yàlla waxoo aay bi laa bëgg nga nil ma aay boobu daal soo demee daal xamu ci ban liir waaye yàlla dafa wax ne daal képp ku mënut bàyyil maanaam moom diine ji da koy traduire ci am xelam xel mu <laughs> waaw diine nag diine du xel mu rafet la diine defal nga yow lii lu tax waaj defal la ci pomme de terre bi amoon na pomme de terre waaye dama laa sànni erreur de marketing la lii erreur de marketing ba defal ji waxal rek amal fulla amal fulla feer ci sa ponkalaay bi sa nawlu yëpp a ngi woon wax dëgg yàlla làq nga sa fukki at nag man xale laa xale xale du sant laa yow xale nga ba nga ne xale laa rek. yow nga làq sa yow te ngaa feer ci sa ponkal gi pataay yëpp war nan de. pataay yëpp war na feeral ci sa ponkalaay bii bu ndox. xanaa gisoo gisoo kër gi ñëpp war nga xëy ran li ma gën a naqari booy doog nga làqu sax. waaye toog ci diggante bi kii kii kii moom kii moom yàlla minute yi xam kii dëkk ak moom sax dafa araam moom. kii dëkk ak moom sax araam xam nga lii baaxul nag. man daf man seen jikko jooju waru gàll man du ma def loolu man mu ndaw laa. kan moo fi war gaale. yéen ñi te yéen war gaale. waaw lu mooy war gaale. war gaale. war gaale mooy lan. war gaale mooy lan ma wax leen war gaale mooy lan woo ba pare mburu mi sax première infraction mooy mayonnaise bi. ah lii yee mayonnaise nday jaay la. mayonnaise nday jaay la mayonnaise. waaw nday jaay la ko lekk. waaw nen bii. ginaar gu sëy ba moo moo ko nen wallaay nday iya, jaay iya, iya. la de. ngeen kan la kafe gi jeex na. bu ko defati nag boy booy ndékkati de la de la. eh eh eh eh eh, eh, eh, eh bul ngaañaat sun kanam de. mbay ki la dem tiktok kii amul lu ñu xaar la dem tiktok Ki ki. faaw nga senap. ko. rek man nga xari luma luma net li lay wër. Wa kon tay ji brasserie yi ubbi nañ fi ne. Ni nga lak. yow tam nga yor ndomboor bi métti na torop. Ha? da ngaa ñàkk fayda torop yow itam. brasserie ya nga lak. Nay jaay da day jaay ci tay ndékki. Xara xara ki. kay petit ba jeex na wala jeexul. ma ne loolu lépp yow itam xaaral rek ma yóbbu ko TikTok. mayaat loolu moom ànd rek lay doon moom. mayaat ñu xàmp bi rek ma xool. xa xa xaaral waay la ilaha illallah moom moo xàmp oh, ko jàngal ko déggal furox bi yow. soob soob kii. Eh, bu ma waxaat bu ma suñu xalaat de lii moom ah wóoroo leen war ngeen ma wóoruma kay lan lan lan la may

ma damaa toog nii doon doon jàng ba mu yàgg bi sonné. Eh, maa ngi ci koor gi nii di. kër ñoom Baye Samba laa dem. waaw fekk leen ñu teg ay cin. Mhm. teg ay karat. waaw yaa may dégg ubbi jën. Mhm. ma naan leen tey moom tey moom añ dana gën moom ñu ne ma ngoon la jëm. ngoon la jëm koor gi yaa na koor gi yow bëgg ne waxuma fi gis naa weer. weer waaw. weer woowu weer wa. yow ñëwoo fii bay lamp ne ma gis naa weer. weer wi peindre kat yi ñoo dem yow nag mën naa kàlla dof du teer quoi. sama nijaay dafa dof de nijaay da dof ngaan danoo wóorandoo. wuyu ma làmp ñu ngi ci biir koor gi koor gi dangay ngay wàññi sa ngay def ndax fi mu ne nii ñëpp koor weeru jéggulu la ak weeru def ak astaxfirullah jàng alxuraan jàng xasay ni ko mag ñi daan defe yeesal sunna si ñëpp booloo xàccandoo dóorandoo ba feebar bii fi am sax di korona ñu ñaan yàlla mu génn ci koor gi ak jàmm. koor koor métti na de. nga bàyyi sa dama daay yi ngay wax. koor métti na kay yow nga jàpp ne moo am paana sow dóor ko mu daal. deel woor sëñ bi. kan man waaw. <laughs> waaye doos yaa dof nag paas mi dafa dof de yow man nu may wooree maa ngi waa ah. waaw kii nga joxe sax dépasse ñeexu dama daa ko dóor. waaw ngoon ngoon ngoon de mën naa joxe dépasse waaye ngoon lay doon. ñoo ko dama daal bu dee dog de allahumma lakk sundu waaw mais nañ ci def ay ay ay faster classe yooyu suukar ko waaw ba allah waaw léegi man maa dem waaw am problème nag ndax daa tàngal mbooy mi noonu naaj waaw man naaj kawam lay yëg di jàll eh, eh, eh, yaa ngi